kon su may ñëw sa Issa bugg fi dara wala def indi dara pour Kër sa avancer motax mo koy wax bon di sante Aram di ko sant di ko gërëm parce que Aram daa ñëw Kër sa xamu fi kenn mu xol mak Bass ñuy and mu xol mak Bass ñuy and te jigen la degg bëccëg dañuy dox di sante yaayam tam bu baax parce que mënon na né jigen la mu ngi and ak ay xalé yu goor di ñu ci ñaaw njort mais sante yalla parce que li lañu bëggoon lii ñu xëcc xëcc ñu ko ñun pour ñun dong dañoo bi zone nord ñëpp gis seen bopp muy kilifa di Omar di ko ñaanal yàlla may ko ndam si bis bi di sant tamit jeune Kër Issa parce que mun naa ne jeunes yi am xaaj seen muy Kër Issa fi la te ndaw la xew bu fi munta am man dinaa dagg sama yitte dem fa naa fa def sama poche naa fa def sama doole Kërissa aw ma takkuma mais maa ngi sant yàlla parce que damay fortaatu rek mais xam nañu bu baax kuy Lamine Jara xam nañu baax kuy Bass mais di gërëm Kërissa muy Omar Badiane di la ñaanal lii nga bëgg fi yal na la suñu borom defal intermédiaire amoo dara rek ñaawoo ba sa kër jàkkaarloo ñun wax ñun oyobal sa pop di ñu jox sa oto ñu siy dugg te mënoon na la saa bañ a bés bi nag mun naa ne guddi na mais ni mu demee la woon ak bés bi parce que c'est la première fois ñu def ko fi di ñaan yàlla nag bu présider les zones nord di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu def ko defati ko defati ko di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi gudd fan adduweer ngeen baal ma wasalaam sama dëkku maam Samba Diallo yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen di jox ku ne wàcc waayam sant ngërëm rek ak kontaante bu baax a baax a baax bi ñu gisee lu mel ni Omar Badiane mi dugg si ci ñun ñu ñu koy dalal nag ñun ñëpp ci bisimilah rahmaani rahim na agsi ak jàmm. waaw ah Kër Issa nag doomu Kër Issa ngi nii di Rama Diallo di sëtu Samba Diallo mi nga xam ne moo xaaloon démb jox ñëpp dëkk. mu bëgg ngeen jàppale ko mooy Omar Badiane président lii laa bëgg ci yéen may nuyu ki waral ndaje bi tey muy le président Omar Badiane Omar Badiane euh, man sañ naa wax ni kenn du ko présenté moom leer na ko ni su ma coalition avec da cee joué lu bëri wóolu ko je peux dire que c'est le dernier leader bi ma am ndax euh, ci moom laa top. Tu ci le politique dañoo bokkoon benn parti Mon mu ñuy jiite man ma doon jiite ndaw ñi loolu ëpp na fukki kon bu jamono di dox jamono terrain politique ñu même coalition coalition avec dañ expliquer avec avec pour expliquer les français alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes Nous avons une particularité Nous avons beaucoup de politiciens qui nga xam ne dañoo ba ba ne moom moo ñuy nekkal en ville a ci Sénégal kenn du ne dégguma turu juge Dème dama ko ko wax bu yàggul ma ne ko l'histoire du Sénégal va retenir le nom de deux juges Le n'est plus parmi nous mais c'est un modèle c'est le juge Kéba mais du juge d'Aim, tout le monde retiendra sa fameuse phrase j'ai démissionné d'une justice qui a démissionné muy ndaw amoon carrière bu rëy ci kanamam koo ko ñëw investir au niveau de la ville dama gëm ni fii ci cees Nord munoo leen fi am bu gëm le président Omar Ba ndax ànd bi ma yàgg ànd ak moom ay reen ak damaa jàpp bi ma ñëwee Thiès Nord ndax dama ñëw ci koñ koo xam ni jamono jooju bi ñuy dugg këram waxuma pour xas dépassé naa politique xas politique gu xastante mais keroog ba may dugg këram néegam ba ma accueillir télévision 15 pouces lañ fa fekk télévision 15 pouces la fa gënoon a rëy ci ay meubles mooy rotin yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci yoonu Tivaouane bi da ngay dugg di fa xasalu ci tapis bi muy xott say tànk kooku bu dee dañ ne jox nañ ko maire yi dafa gu fi fukki at ñu koy limal ay këri këri këri kër kon war ngeen xam ne jël na seen alal jëfandikoo ko kon kooku da ngeen di am courage yu tekki ko ñun nag dañoo tudde suñu bopp avec liggéeykat yi newuñu avec naxaatekat yi ñun dañoo gëm ni avec mooy kaay la ñu ànd liggéey avec triant yi nag su amee ñu bëgg a ànd ak triant yi nañ dem ànd ak triant yi ñun góor ñi la ñu soxla ak liggéeykat yi woowuñu leen pour nax leen dañ leen woo pour ñu ànd liggéey ku nangu ku nangu ñu fekk leen nga toog ñu naxee la benn cent mille francs wala benn deux cent mille xamal ne dañ nga dañ nga dañ ngaa nangoo jaay sa bopp ndax mil 200000 mu mënoo dajale par exemple 100 personnes jox leen ko buñ ko séddoowee kenn amu ci 2000 francs yooyu ndékkee da ngeen di fol ay fal ay gar gor ñu set wecc ñoo xam dañoo nekk ci dëkk bi nangoo ànd ak yéen nangoo liggéey ngeen doon avec ngeen développé seen dëkk te loolu noonu biir Thiès Nord dama fee bari ñoo xam dama leen xam ñuy ay ndaw yoo xam ne man maa leen tette ci politique dégg naa fi beneen jeune bu ñuy wax Ousmane Diop kooku boo ko nee Louis Mango danaa la sama kilifa la ku mel ni Cheikh Ndoye ñoom ñëpp jox nañ leen cër mais Lamine Diallo la ñuy wax la ko sa Seck takkaloon na seetal boppam ba pare balaa muy laajaat dëkk bi wasalaam di le président Badiane di nuyu le juge euh, tam de l'Est monsieur Mango di nuyu délégation bi bi ma andal ak bi ngeen andal yépp. may nuyu waa kër Issa bu baax a baax a baax di leen masawu coono man leen rek moo may reetaan loo fan bu ma dugg lamp mbedd la ñu am waaye yéen visu mbedd ngeen am non vis ngeen am lii moom du lamp mbedd li tax mu ñaaw li tax mu ñaaw à deux pas à deux pas le maire rek defal leen Fils. man bi ma duggee fii dama tiit parce que fii y a vingt ans ni le melon, ni le continuer mel lamp yi ci village yi gën a reculer rek nga koy gis au Sénégal donc mën a dugg pire fil nga fay gis ay pause lii rek dafa ñaaw lui lui lo wax am na lu des mais man len rek ka ma metti terrain yi nga xam ni néew di doole yee mom ñu nangu ko jox ko ay soi-disant kilifa ne rek man lii ma dugal ci politique te ñëwuma rek pour euh, gagner Lamine Diallo déedéet gagner bi moom day leer incha allahu rabbi parce que Sénégal lenn rek lañ soxla ay góor yu ànd jóg pour laaj réew soxlawuñu guerrier buy taal pëna soxlawuñu yi buy lakki ay magasin wala di def naka sudul noonu wala di saaga nit ñi loolu réglé wul Sénégal ay góor la ay góor mooy réglé Sénégal te ay góor a ànd lii yaa ngi wax sànq ci coalition bi ñu dëkk a bokk après dafa tas parce que instant yi nii coalition jaaykatu terrain yi am na fi coalition jaaykatu euh, euh, suufu jàmbur yi ñoom ñëpp am nañ ci biir te luy sànq tudd nga leen jarul ma leen fi jaawalaat nit ñi ñoo war a ñu baax ñi. nit ñi ñoo war a ràññee ñu baax ñi surtout yéen waa Kër Issa gàcce la ngeen am maire bu fi juddoo dëkk fi yeroo fi te yéen a gën a sonn ci zone nord lii gàcce la li ma dugal nag ci politique mooy gagné Lamine Diallo waaye poursuivre ko poursuivre ko poursuivre ko pour mu delloo terrain jàmbur yi ceere moom dinañ ko càmbar benn par benn teere bu mu mas a jaay dinañ ko càmbar benn par benn président Badiane lii rek a tax ma ànd ak yow loolu laa tax ma ànd ak yow bis bu ñu gañe te loolu laa lay ñaan terrain par terrain nañu ko jàmbat parce que maa ngi ay lu benn vingt dossiers yoo xam ne ay suufu jàmbur lañ ay suufu jàmbur yu ñu nangu dañoo dañoo ñàq ay fóotkat ñu baal ma ci kàddu gi ay lafañ parce que noonu lañ koy wolof la ak silmaxa

nangeen na ngeen ko mën a fajee jël seen i sànni ko waa avec maa ngi sant ñëpp nuyu di nuyu kilifa yi fi toog ki waral daje bi mooy suñu frère président Oumar Badiane di ko nuyu di ko di nuyu ñëpp ñi mu àndal di nuyu suñu candidat moom mooy candidat suñu coalition au euh, à la zone nord di nuyu suñu candidat à la zone est mooy Luy Mango ki nga xamante ni mooy suñu candidat zone est muy Diouldé Ndiaye dafa am gàllankoor moo tax donc man mii jël parole bi man maay candidat à la ville mooy ci mairie bu mag bi léegi nak dana bax man ma wax len lu tax ma ànd ak Oumar Badiane jàng kenn duñ ko wax fi ci Sénégal lan moy importance éducation à part loolu ay sport ak culture ak yenen ak yenen ñepp ci compétence transférées yi la bok ak tamit li ñu tudd léegi mooy mbiru gestion souf Wow, l'olio, qui va gérer mais est-ce que dafa a n'importe qui est-ce que kiko wara a gérer dafa war a ba wala des ci élection yi man la bëgg wala dafa fait a fekk koo xamante na depuis longtemps mu am yéene tu la d'abord am ambition

parce que politique il faut nous changions. il faut que la manière de faire la politique nous change. parce que askan wi lottu nous di des ci nit ñi nit ñi promesses. Nous defal ay promesses nous taxaw di des ba nous avons fekk des loolu nga bëggoon nga sa poche sa poche la

te ñun li ñu bëgg au au sein de notre coalition xam naa danañ ci gën a waxtaan ñu gën cee liggéey parce que maa ngi woo sax fan yi président Omar Badiane pour ñu gën a travailler ci suñu programme yi ñu def de telle sorte que Thiès ville bi ak commune yi travailler en parfaite intelligence ba li ñu fi gis li ñu fi gis année yi passé ñu wane ni Thiès am na ay doom yoo xamante ni am nañu taxawaay bu doy am nañu yéene bu doy am nañu jub bu doy am nañu maandu bu doy te ñooñu ñoo ko mën a changé te am nañu yaakaar ci ñi nga xamante ni ñoom laa gis muy Lul Mango muy Julde Ndiaye bi nga xamante ni ñëw fi muy président Oumar Badiane ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal. donc loolu moom mooy raison ñun suñu taxawaay tey loolooy raison ñu ànd ak président Oumar Badiane donc ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu ci loolu ñu ngi ñaan waa kër Issa parce que fii la ñu nekk tey. ngeen jàppale ñu ci loolu parce que réew mi soxla na yeneen doxalin soxla na yeneen nit soxla na yeneen beneen façon de gérer parce que looloo ci mën a génnee maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam Mari Ngoone Sabel damel ma Samba Takor damel ma Khourédia Biram Fatma taalibe Cheikhul Khadim bi balay sama li nga gëm sëñ Mbàkke ak maaram rek Maam Mor Jaara sëriñu Cerno Ibrahim ndama la ca daaru wër gi nga doon nga boo taari maa yombee ndimbal wëri bàyyi ba sa baara maa mi dana Cheikh wër gi semal fuuta gàggal ci gànnaar bay Sëriñ Fall Mbàkke fa la abou sa jàmmañal marama kunta baara mi ci kàddu gi bay Cheikh Abdou Karim Mbàkke borom dindi makariman axlaa di jaay Maam Jaara day Moussa bay Sëriñ xulum fala pap nga la xabaan borom la gën a ndoka borom joobaan nga teroon xayga maami ndongo yi bàyyi Serigne Cheikh Saliou bàyyi Serigne Moustapha Saliou kookoy le ko président jël ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp nekk ak trop ak santam di nuyu ñi nga xam ne teew nañu fii ñëpp di ñu jël nuyoo bi ci sunu xarit di sunu allié muy le juge Dème bi nga xam ne ma nekk sunu candidat à la ville

Aram Gningue ñëpp ñoom Lamine Diarra ñoom Basir Baro ñoom Rama Diallo ñoom Pape Omar ak ñi si nekk ñëpp mën ma leen lim mais xamee ne kontaan naa si yéen trop trop trop ndax bu leen waxee nii meeting bi àjjuma lañ ko arrêté du ngeen ko gëm àjjuma samedi dimanche tey moo tax li may tàmbali wax mooy suñu responsable yu bari maa ngi jégalu si ñoom ndax xëy na information àgg fa war a àgg mais lii commencement rek la yàlla def def tey aussi bi nga xamee ne arrêté nañ yi ñu war a dem si joŋante yi coalition bi nga xam ne moom lañ àndal.

parce que xam na yi yéen ñëpp dégg ngeen rajo yi liste yi mett na liste yi bu jàllee c'est parce que mandataire ñoo def seen liggéey que soit muy en ville que soit muy à l'ouest à l'est au nord ñun ñëpp ñu leen di gërëm ndax si liggéey ngeen baax di gërëm la jeunesse du parti di gërëm Youssou Youssou Youssou Sankharé Cheikh Anta maa leen di gërëm ak seen équipe gis nañ ni ngeen def gis nañ li ngeen ànd liggéey ko di jox mention spéciale aussi jigéen ñi jigéen ñi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax i ngeen ànd solidarité di jàppe seen morom yi vraiment continuer si loolu rek ba au soir du 23 janvier bu boobaa na leer. di gërëm aussi l'équipe bi nga xam ne moom laa jiite Cheikh Tidiane dafa coroné ay ñoom Ndiaga nekk si naan ñaar Seck vraiment ay ñoom imam ay sama xale yi nga xam gis naa fi sa Mendas di mes amis d'enfance ñoom Babacar Ndiaye ñoom Madior vraiment di gërëm sama dëkkandoo Aliou Ngay leen di leen si kaw candidat nga aussi vraiment ñu leen di sama dëkkandoo yi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp leen sant xam ne kontaan naa si yéen lool lool lool élection yi ba ba léegi yéen ñëpp bàyyi li ngeen def ànd ak man ni ma na leen def ñu soppar ñu kees kon xam ne li ngeen def nag maa ngi koy gërëm mun maa ñëpp nag mais xam leen ni vraiment sama xol na si yéen ñëpp ñëpp sans exception ñaari yëf rek laay ñaari laay ñëw ñun waa Thiès danoo sonn rawatina ñun sol noor fii ñu dëkk ñu gën a sonn defe naa dëkk ak Issa dëkk ak maire bi wax nañ ko mais defe naa li si jële ñaari yëf dong la benn bi. comme ni ko sama xarit Babacar di wax mu ne réew mi bu tolloo fii c'est parce que ay gor ñoo ko jiite wut anoon na war nañ fay jëlee maire bi. bu ñu jëlee maire aussi nañ xool ñan lañu fi teg bu ñu ko jëlee rek pour jëlee ko fi te defe naa ñu ñu composé coalition bi mu nekk ville nekk nord nekk est nekk ouest vraiment c'est des hommes de valeur bu ngeen déggee coalition ni mu wax dan ni ak liggéeykat yi ak liggéeykat yi kon def naa ñu ñëpp ne leen nungu nekk liggéeykat yi ñu ànd loolu liggéey suñu dëkk te bu ñu liggéey suñu dëkk mairie dafa am loo xam ni moom la ko état bi dénk ni ko ay compétence compétence yi am na sama ñi may jiitu àndoon si wax du wax si loolu mais am na yeneen yu ndaw yoo xam ne aussi tamit war nañ koo xalaat parce que boo jógee si yenn quartier yi nga dugg si yenn quartier yi li nga xam ni mooy problème foncier bi am na quartier yu bari yoo xam ni fan dëkk am ñu ay këyit te nit aussi bu yoree dara da ko war a ñogal def ko suturam ba xam ni lii day nekk sécurité parce que war noo fexe ku nekk fa nga nekk tamit nga moom ko mu law la waroon ko fexe ba sécuriser ko ba nga xam ne yow nga xam sa alal ba boo léegee loo si def nga xam ni fi sa alal <coughs> bëgg nañ quartier yi tamit aménagement maire ko war a def am na quartier yu bari zone nord bofa fa duggee doo xam sax fan ngay fan ngay continuer kon loolu war na waxtaan ak dëkk bi ñu waxtaan ak ñoom ñu xool ñu ñu jumantee mbedd aligné ko ba yàlla mën a def bu ñu si bëggee indi courant indi ko fi bu ñu si bëggee indi man faa am fa dara xewee sapeur fa dugg ak leneen nga xool xale nga xam ñoo nekk zone nord je le dis toujours nous sommes une commune de plus de cent vingt habitants defe Nani, sama xarit de wax na ko léegi si wàllu sport mais est-ce que xam ngeen yéen waa Sénégal une commune de cette envergure bu ñuy fubal dañuy génn suñu commune dem beneen commune pour fubali fa. dañuy génn nord dem est ba dem est dafa fubali est-ce que loolu c'est normal est-ce que loolu c'est normal.

il n'y a de sante de te defe naa les critères war na ni quand même yéen population bokk amee war nga am ay centre de santé kon nag zone nord war na am ay sant de santé yoo xam ni mooy war a mettre au moins war a relever le plateau technique sanitaire ndax ku wérwu doo mën a dem mais loolu lépp li koy waral ñun bu ne dañuy ànd liggéeykat yi c'est parce que dañoo bëgg a liggéey dëkk bi te bu ñuy liggéey dëkk bi du ñun dong ñoo koy liggéey ñëpp soxla nañ ko ñëpp bëgg nañu ànd dañoo waxtaan ak ñoom ñu liggéey ko ñu xool li gën si dëkk bi ñu def ko parce que ki fi nekk ñëpp xam nañ ni li fi nekk man conseil municipal la la mu liggéey xeeb naa ko lool lool lool lool lool billaahi bu fekkoon liggéey na lu baax damay ñoo nekk bàyyi faalam ànd ak moom mais li muy liggéey dama ko xeeb lool lool lool lool ak problème yu bari yoo xam ne si nga défense wax nan ko ak xam ne ñu dund nañ ko parce que dëkk boo jiitee ay nit da nga da nga yërëm ñi nga xam ni ñoom nga jiite ma jël bi exemple mooy marché central marché mais ne ko war a yor mais sunu marché bi nga xool sunu yaay yi jógee kër suñu yaay ju ne si yeneen koñ yi njël lañuy ñëw foofu si boulevard bi di jaay au lieu que yi organiser ko ñoo am fu ñu toog mais bu ñu ñëwee bu ñu fa ñëwee day nungu li ñu yor te loolu lañ yaakaar préfet dépense di ko nungu di ko séddoo seen biir les citoyens ñoo ko séddoo moo tax bu ñu toogee si maire bi waxuma la rek la fa maire def waye ñam andal li liggéey du lobal lepp dañ ko ciambar ba mu leer ku ndek lu ko wara dox dox ko lu fa wara tek ko fi ñun dëgg lañ def lepp luy ak doom adam bu soom yalla ñu ko dañ ruy rangooñ nañ ko far ndax liggéey suñu dëkk lañ bëgg liggéey bi nak dañ ko tek ci dëkk dëkk ko ci ndub lepp luy def yeen ko xam lepp lu seen bëgg-bëgg na ci and ak yeen du ngeen bëgg ta ant ak yoon na leen wax la ci yoon wax nek nekk foofu neex parce que yéen a ñu yónni bu ngeen yónnee li ngeen bëgg leen war a def kon ba ngeen xam ni ñun ñi leen di liggéeyal ne leen rendre compte ngeen xam ni ñuy def xëy na nag bëgg-bëgg yi bare na am am bi yomb na am am bi tuuti na bu bëgg-bëgg bare am am bi tuuti dangay xool ay priorité dangay xool li gën a farata nga def ko boo si jógee doo def leneen en tout cas nous vous tiendrons le langage de la vérité wax leen la fa am wax leen lan mën a lan mën a def te lépp lu ñu leen wax nañ ko def bis bu ñu leen waxee kon mu ko ànd yéen si politique bis bu ñu leen waxee loo xam defuñu ko bàyyi leen en tout cas yéen a ko moom si yéen leen nekk seeni i waa leen def ñu dañ leen servir mais du servir suñu bopp parce que ñi fi nekk ñëpp xam nga leen.

nous rendez-vous très prochainement Nous sommes nous nous programme point par point Nous ñu xam ko ñu nous vraiment un très bon retour merci beaucoup.